asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu di ziar ñëpp woote njiitu réew mi Macky Sall la jëm ci sëriñu daara yi te ay wuute am ñenn ñi ñaawlu ko naqarlu ko di wax ne bu kenn wuy ji ngir nangam ak nàngam ak nangam yu bari ñenn ñi ne ah nañu wuy ji lu mënta ñàkk la. ñenn ñi mel ni yàkkamti woon nañ ko kontaan nañ ci lool toog ne bu kenn wuy ji loolu moom jàpp naa ne du xalaat ba gën ndax kilifa gu toll ni njiitum réew soxla ñenn ci askanu réew ma ñu lànk bañ ne duñ ko wuy ji loolu du du xalaat bi gën te buñ ko defee ndax dañ koy continuer njiitu réew mu fi mën a nekk boo leen wooyee ñu bañ walla moom rek lañuy beral loolu bu keneen wootee ñu wuyu ko ak lay wuñ mën a lay nag moo tax loolu lu mat a seetaat la beneen bi neen nañ ko wuy ji ci nii mu wootee it lu mat a seetaat la ndax xëy-xëy dégg ñu ne njiitu réew mi moo soxlawoo sëriñ daara yi nañ ko wuy ji ca barab sàngam bés sàngam région bu ne na nangam bàyyi ko ñu waxtaanee nangam loolu daa niru lool ku ñuy noggatu ku ñu néewal doole wala kuñ jàpp wala kuñ xeeb lool ba dégluwuñ ko ci dara mel ni ku ñuy diri ku ñuy watat du tàmm fañ koy jaarale kon ñi wootee nañ xam ne ñu ñuy woo ay nit lañ ay kilifa lañ ay boroomi xam-xam lañ moo tax woote bu mel nii dañ ko war a waxtaanee njiitu réew mi moo leen soxla nu ñuy amalee jotaay beeg nu muy deme ñu waxtaan ba dëppoo ci ay tomb loolu tax ma bëgg a wax ne bañ a wuy ji woote bi ëpp naa xalaat ndax danañ tàbbi ci kàmb goo xam ne ëllëg mën nañ caa bëgg a génn mu jafe waaye mën naa yokkit ay jafe-jafe gën a dëgëral nguur gi ci càggante ak not gi nga xam ne ñi ngi koy not daara yeeg sëriñu daara yi jox leen ay lay yu dëgër woo nañ leen ngeen bañ wuy ji ko ci nii mu wootee it luy yokki jafe-jafe la ngir lan gouvernement ñi muy waxal ci yu mel ni ñi nga xam ne jàpp nañ ñoom ñoo nekk ca boppu mbootaay gi tënk daara yépp di wax ci seen tur di dem ak dikk seen tur ñi ëpp ci ñooñu doonuñu dara ci dara ay lijjantikat lañ ay làqarcikat lañ ay boroomi pexe lañ rek ba toog fañ toog di dund ci turu daara yi te loolu firnde yi bari na lool ci région yi ci dëkk yu mag yi am na ci ñoo xam ne fañ toog jiite sëriñ daara ya fa féete teewal leen ca kuréel gu mag yàlla xam na ne boo ante nañ ba toog fa te amuñu daara mosuñoo am daara toog nañ fa jiit sëriñ daara ba noppi door a lijjanti nu ñuy def ba am daara wut ay quelque xale wut ab jàngalekat euh, tuddee ko ne loola mooy daaraam gannaaw boo xam ne moom jiit na sëriñ daar yi ba noppi xam nga ñu mel noonu leneen moo leen yittee lu dul daara ñenn ñi dañoo xamul sax nag daara ndax ay ustaas lañ te ba léegi sénégalais yi xàmmewuñ ustaas yeeg imaam yeeg sëriñu daar yi dañu jàpp ne yëpp benn la. te bari na oustaz bu ne ci école ba jambar lol xam-xam ba reuy lol mu meuna jangale ma ngay liggey liggey bu reuy waye boko joxon dara ji ben wer ben semaine dara ji tas lepp yaq wala mu soppi ko ab école ndax lolou la xam xamul dara ci dara bari na kuñ nan sëriñu dara ngir moy imam ba te xamul dara ci dara ab imam la sëriñu daara beneen mbir la bokkewul ak ustaas même bu jiituwul ca jàkka ja jiituwul ca jumaa ja du imaam teewul moom mooy sëriñu daara bi moo xam daara mooy dund daara moo war a wax ci jafe-jafey daara ak lu koy saafara woote bi nag man jàpp naa ne li ci gën mooy sëriñ daara yi nañu wuy ji waaye naka ëwalan nañu xool bés biñ leen woo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi nee nañ ci lañ war a àtte ay mbokk yuñ tegoon loxo yoo xam ne ñu ci ëpp doomi daara lañ daara lañ leen di askane tuumaal leen ne ay irhaabi yoon lañ beneen bi mooy ci bésub jàng la moo tax kon balaa ñuy wuy ji nañ waxtaan ak ñi leen woo bés bi ngeen ñu woo nañ seet yeneen bés benn nañ ñu woo bésu alxames bés bi nga xam ne mooy bésu feet ci daar yëpp ndax ku woo sëriñu daara mu war a paase lu toll ni bés ci tukki mu sori boo ko doon tàmm tànnaloo ci coobare boppam alxames lay tànnal boppam kon nañu leen woo beneen bés bu bokkul ak bésu jàng boobu woo leen ci beneen taarix bu bokkul ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci weer wii nga xam ne ci la àtte boobu war a am lu lu lënkalee bésu woote gi ak àtte ba ndax tombe la wala luñ nose la luñ programme la yàllaa xam waaye nañu xool yeneen dat beneen bi ñan ñooy wuyu ji nañ leen tànn sëriñu daara yi xamante ñaar wala ñett ñoo xam ne mën nañoo wax ci làmmiñu sëriñ daara yi bu dul ñëpp bu dul cent pour cent yi li ëpp ci sëriñu daar yi danañ doyloo seen kàddu loolu am na fi bu baax a baax mu wóor leen na ñii bu ñu leen yebalee danañ jotli kàddu yeñ bëgg ñu jotli ca dañ ko war a jotlee lu tee ñu tànn ñu mel noonu doonte kenn déggut leen ci ay ittihaad ak ay jamayaat yu ni mel beneen bi mbooloo mu bari mi ñu wax ne ñooy wuy ji région bu ne juróom-ñeent fukki nit bàyyi ko fa juróom-ñaar fukki sëriñu daara fukki donga fukki yaayi daara donga yi wuuti wuñ fa dara sëriñu daara yi ñoo leen fa teewal yaayu daara yi it buñ fa mënta bañ a teew lim bi nu mu gën a néewee gën sëriñu daara yi lim bi ëpp na ndax lii ñu wax lu mat junniy nit ak ñaari téeméeri juróom benn fukk te mën naa am sax mu ëpp ko ñoo fa war a teew loolu laneen lay niru lu bokkul ak woote ngir waxtaanee jafe-jafey daara yeeg sëriñu daara yi kon nañu seet lim bu ndaw ñu wax ñi leen woo leen ñii doy nañ mën nañ ñoo wuutu sëriñu daara yi ci woote bi kàddu yi ñii lañ koy dénk ñu jot lil ñu ko njiitu réew mi waaye nañ wut beneen bés nag bu bokkul ak boobu ñu tànn te doonul bés bu baax doonul bés bu gën ci daara yi loolu daal jàpp na ne mooy taxawaay bi ñu war a am ci mbir mi te bañ a toog ne bu kenn wuy ji ngir la mën a jur ci ay jafe-jafe bañ a demit wuy ji ci anam gi nga xam ne dëgg-dëgg nit koo warmaal doo ko woo mu wuy si la ci anam gu ni mel wallahu a'lam